asalaamaaleykum population arrondissement de Dakhar maa ngi dellu di nuyu ku si nekk di à une population bi yëpp ci bis bi nga xamante ne moom Nous voulons célébrer le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. loolu nag suñ ko bëggee def fii tey dafa am ñoo xamante ne vraiment jàppale nañ ñu ñun ci li nga xamante ne moom moo doon suñuy yéene pour que xale yi nga xamante ne judd nañu mosuñu woon gis defile ñu mën a bañ a ñee waa dakaar ak feneen ñu ñëw dund defile bi en grandeur nature loolu defe naa ci jàngalekat yi

kon loolu si thème bi nga xamante ne moom la ñu génnee loolu mooy solo bi mu jëm nag ci wàllu euh, éducation citoyenne ak euh, unité nationale. tey nag suñu ñëwee fii tey ñu gis festivités yi nga xamante ne jot lañ koo def depuis bi nga xamante ne kuréel yi nekk waaso yi nekk ci biir arrondissement bi yëpp taxawoon nañ démb. génnee seen cosaan génnee seen aada mu doon loo xamante ne lu ñu rafetlu la population bi yëpp ñu gis ko ñu xam ne loolu moom mooy arrondissement bi loolu mooy fête bi ndax fête bi dañ si boole ñëpp bëddiwuñ ci kenn ginnaaw loolu fête bi buñ koy def dafa nekk loo xamante ne xale yi dañ ciy war a gis seen bopp waaye itam population bi ci wàll bu ñu féete ñu mën si gis seen bopp loolu rek la moo doon suñuy aidé pour que ñu def ko wane ne population bi ñoom ñoom moom fekk parce que du ñun population bi ñoom dañuy xam ne ñoom la ñuy feetal ñoom ñooy bokk ci fête bi nga xamante ne mooy fête de l'indépendance ginnaaw loolu nag maa ngi dellu di gërëm autorité yi teew ci tribune bi yëpp nuyu nuyu nañu le premier magistrat de la ville M. Euh, monsieur Aymérou nous avons Fall maire de Koul nous avons qui Mbaye bi nga xamante ne maire de ñu représenté wu mais nous avons aussi autorité politique et religieuse su lim vraiment képp kuy doomu arrondissement bi rek muy chef de village yi muy population bi muy dañu gis ci biir doxalin bi ñu def ñaari décoration décoration bi doon chef de village yi nga xamante ñoom ñoom ñoo fay ñoom ñoo impôt à euh, en totalité à 100% pour cent

lépp lu commune bi bëgg a def ñu mën koo def ci wàllu boobu loolu moo tax nag ñu ngi profiter ci occasion bi di ñaax population yi pour que ku nekk ci ñoom ñu mën dem euh, fay impôt bi ci wàllu boobu beneen bi ñu ngi dellu euh, ñuy féliciter ñi nga xamante ne ñoom la ñu woon ci wàllu environnement benn bi muy Modou Mbaye ni ko waxee woon di jéem dafay nekk kenn koo xamante ne saa yoo yeewoo fajar nga gis ko mu nga xam muy for ay mbuus di ko dajale pour mën koo taal pour mën koo euh, loolu lépp pour préserver environnement bi deuxième trophée bi mu nekk ci jigéen ñi man su ma génnee fii di dem di dem ngaay daanaka fii ba gëti ba ba ba ba gàttañ ñëpp foo romb jigéen ñi ñu ngi nekk di bale di bale tali yi kon loolu dafa nekk action boo xamante ne pour wan leen ne gis naa li nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàllu cet loolu moo waral ñu def action bu mel noonu ñuy dellu nag di leen di gërëm di leen ñaar aussi di ñaar jigéen ñi ndax loolu wane na ne koo xamante ne am na setu biti am na yaakaar ne ci biir kër gi dinañu set loolu euh, cër la bu nga xamante ne moom la ñu jox jigéen ñi ndax jigéen ñi ñom ñoy soxna jigen ñi ñom ñoy yaay jigen ñi ñom ñoy yor xale yi jigéen ñi ñom ñoy yar jabon kon nak euh, ci biir lolu ñuy dellu si waat nag tey lii yëpp bu ngeen gisee tay mu mën a dox nii comme sur les roulettes c'est parce que dama and ak ben adjoint muy monsieur Ali Koto Lafoun di suma rek nek ni nga xamantene moom mooy l'adjoint au sous-préfet de Mérina Dakhar mi nga xamantene mom la laa président du comité d'organisation tay lépp lu ngeen gis mu dox fi dafuma ci dara dama coordonné rek lépp mom moko def mom mo nekkoon interface bi entre ñun ak population yi entre ñun ak acteurs yi entre ñun ak force de sécurité yi kon tey réussite bi bu amé je lui dois cette réussite là

réussite foofu ngay jàngee foofu ngay aussi mën a def résultat kaddu yooyu la ñu bëggoon nag may dellu di gërëm toute la population de Mérina Dakar particulièrement population yi nga xamante ne jóge nañu Pekesse jóge nañu Koul ak population bu Mérina Dakar ñi nga xamante ne lépp li ñuy def action yi ñu def yëpp ñoom ñoo ci jàpp ñoom ñoo ko defal kon nag euh, ñu ngi continuer